Euh, fukki fan ci weeru octobre 2019 bi passé président Macky Sall dafa woote ndaje mu rëy muy wóol képp kuy maire kuy président conseil départemental fële ci kad bi mu waxtaanee ñoom ñoom élus yi dañu am document bu ñuy wax mémorandum ñu jëbbal ko njiitu réew mi mémorandum boobu nag Nous avons yu le statut de l'élu local wax nga ko fonction publique locale mais également développement territorial territorialisation des politiques publiques Nous ñu fexé ba lu lu au niveau central nous avons ko les élus locaux len ay pour ñu manquer ko def au niveau ci la commune wala un département C'est la territorialisation des politiques publiques Beaucoup na ci tamit fiscalité locale xam nga ne département amagul fiscalité locale département collectivité territoriale ci Sénégal L'Union ñuy jublu li ñuy jëfandikoo lépp état bi moo leen koy jox donc ñoom it nañu problème de fiscalité locale statut de l'élu local ak yu bëree bëri yoo xam ni mi ngi ci biir Le président tamit Macky Sall a na dogal ni pakkasen bi nga xam ni téeméeri commune ak fanweer ñoo koy ci téeméeri milliards ak at dina ko lawal ba ñeneen ñi ci ñi ni Sénégal collectivité territoriale ak commune ak ak y compris les cinq villes ndax statut commune la am ak la ak département collectivité territoriale ndax département bu Pikine bu ak euh, bu Dakar ay ville lañu département motax mu doon 42 au lieu de 45 loolu nak ñi amul won ñepp ci pakassen bu njëkk bi dañuy dugg ci biir pakassen rural y compris le département. su ko defee nak ñu ñu dugg ci liggéey bi ndax xayma nañu sax pakassen rural bi mais dañuy bàyyi ba le 10 octobre le président wara présider la journée nationale de la décentralisation pour que mesure yi am solo yëpp nga xamni moy ubbi perspective yi ñu jëm ci ñu ñëw deuxième phase, acte 3 de la décentralisation, nous avons Il y a un projet qui est en aussi presque 1 milliards. nous avons PDZP, nous avons Dougal et nous avons collectivité. Sans compter le financement, nous avons solo, nous avons de un collectivité. Les fonds de dotation, euh, 1 milliard avec euh, Jérôme en 2012, nous avons eu 2 milliards avec Jérôme. Bonjour les fonds d'équipement des collectivités territoriales Il milliards ak ñaar ak genn wàll la woon presque ba fanweeri milliards ak ak xorom si nga xam ni mooy sel di contribution économique locale nga xam amul communauté rurale yi nous ñu jot benn patente d'anaka. ren depuis ñu commencé Selby, nous avons koy commencé dugal pour que nous am équité Nous patente bi daan des ci quelques collectivités mu am lu des mais lu am mu am aussi lu ñu mëna a yenen collectivité territoriale yi nek Sénégal mu yenen communes donc yooyu yëpp bokk na ci financement yo xamni ni ñu ngi jappalé bu baax collectivité territoriale mais également yenen financement innovant yo xamni ci phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation de ñëw